ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci sangam bu tedd bi seydina muhammad sallallahu alayhi wa ñu santaat suñu borom bi ñu may ñu tàmbali weeru koor bi génn ci si jàmm ñu ñëw tey fii ci grande mosquée bu ndakaaru su njiitalu suñu imam ratib imam El Hadji Moussa Samb julli mu jiite julli korité wax ci wax yu am solo si diggante doom ak ay waajuram muy thématique bu ama am solo ndax si société la ñuy dund dina baax kilifa yi di fàttali li nga xam ni moom la diine di wax si diggante nit ki ak waajuram nit ki ak euh, dëkkandoom nit ki ak ki nga xam ne moom la bokkal jamono ci loolu nag ñu jàpp si bu baax a baax li mu wax ci responsabilité wayjur yi jëm si seen njaboot ah muy lu am solo jàpp naa ne ñun ñëpp kenn ku ci ne war nga ko mën def muy ah, ay digle yoo xam ne soo ko doxalee ci sa biir njaboot yàlla mën a la si génne ak ay ngéneel ñuy santaan nag bu baax di jaale communauté lébu collectivité lébu bi nga xamante ni kenn ci kilifa yi muy ndey ji réew alaaji Magoubi Diagne moo wàcc liggéey ñun ñaan yàlla mu xare ko aljanna di ñaanal njabootam yàlla may leen xolu muñ te teg loxo si ginnaaw li mu bàyyi si ginnaawam di jaale grand serigne euh, Ablaye Makhtar Diop di jaale imam ratib di jaale dignitaire communauté bi yëpp ah di fàttali rek ne jamono jafe la ñu nekk waaye li jamono di jafe-jafe ñu ngi def suñ kem kattan ngir wàññi jafe-jafe yooyu le ndax ku ne xam na ni ci mbas mu yàgg la ñu jógee ñetti at guerre bi am ci Ukraine ñëw yokkati jafe-jafe àdduna bi lépp cher waaye terewul taxawaay yiñ ci def wàññi na li nga xam ne moo naroon nekk jafe-jafe askan wi euh, ñu ngi ñaan yàlla nag loolu gën a jëm kanam moo waral ma ne même nawet bi ñu dëgmal pour la première fois ci histoire du Sénégal gouvernement bi jël lu toll si téeméeri milliards war ko jàppale béykat yi si wàllu engrais wàllu matériel ak lépp loo xam ne dina tax mbéy mi jëm kanam loolu nag bu amee li ci des dañuy ñaan suñu borom mu defaral ñu nawet bu barkeel su ko barkelee ñu muurloo ko may sant kilifa diine yi ci réew mi di leen ndokkale ci bés bi di leen sàkku ñaan ñeel Sénégal jàmm sax fi ak teraanga ndax jàmm ci la lépp xej kon loolu nag dinañ ci dox maa ngi wootewaat ñi nga xam ne moom lañu ñu bokkal réew mi ñu tudde leen le force vive de la nation ci loxo bi nga xam ne mosuma ko banque muy loxo dialogue ngir ñu xool nu ñuy waxtaanee mbir yi ñu bokk muy Sénégal waxtaan boo xam ne tam dañ koy teg ci yoon teg ko ci ni réew mi war a doxe loolu dinaa xool fan yi di ñëw si yan anam la ñuy tàmbali waxtaan boobu ngir euh, nit ñi mën a euh, jublu ci liggéey ndax liggéey rek mooy tax en tout cas ñun moo ñu fi bàyyi te moo fi war a bàyyi képp kuy jóg di am yéene wala di yaakaar liggéeyal waa réew mi kon nag loolu maa ngi ci woo ñëpp di balu ak ñëpp te di balu ak ñëpp jërëjëf kon Ibrahima ñee ko teewloo ndoo ci kallaama tubaab la ko njëkkee mhm. teg ko ci kàllaama wolof fi mu nekk nii nag njiitu réew mi